أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله gannaaw santaat yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te mooy yan na jàmm yàlla wàcc ci suñu kaw ñun ñëpp wa bi bikum min ni'matin fa min allah bépp xiwal bu ñu am nañu ko sante yàlla ndax yàlla rek moo ñu ko mën a jox alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi gërëm association bii nga xam ne ñoo mobilisé mobilisation bu tollu ni tey mën a dajale courant islamique yi yépp ci benn place ñu war a yëg ne <clears throat> imam Mbaye Niang wax na ko ay aéroport gi mën naa wax ni fi la conférence islamique yi gën a am solo ci réew mi fi la départ ba noona buñ ci continuer woon tey passé nañ fii waaye yàlla daf ñu nattu ñu am lu mat fukki at ak juróom ñu nekk ci ay détails fukki at ak juróom depuis 2000 ci lañ commencé nekk ci ay détails ñaar ñi ñu yore woon pour mu doon doole ci ñun di kattan muy at tabliix ak tabyin tabyin mooy leeral diina yàlla yi diina yàlla ji bam leer ci bopp nit ñi bu leeree ci bopp nit ñi rek ñu ñu ñu ko tabliir mooy ñuy def ay conférence di def ay table ronde di def ay causerie xale yi ñu mobiliser leen loolu dafa xëy rek ne gomox fay tey nag dañ ñu yàpp dañ ñu yàpp li tax ñuy yàpp ñu bukki bu yabee ponkal ca doxin wala ànduñ ci dara ànduñ ci dara li fi nekk ci tayaar islamique bu ñu àndoon tey li fi nekk ci tariqa bu ñu àndoon tey li fi nekk ci doole bu ñu ko mobilisé woon tey danañ dem ci ñetti ñetti mooy at taabia ad daawatu taabia daawa mooy mobiliser mooy ñu am ngir lislaam daawa woote jëmee ci yàlla tabliix mooy kàddu gi àgg fu nekk Sénégal diina bu bëgg lislaam bala koy xam nga tukki waaye léeg-léeg nelaw daf koy yomb fii liñ fi mos a rassemblé ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll waaye day nekk wax rek mu nekk xamaas nit ñi tëb allahu akbar ji buñ fi bàyyee mu ne gomoox maa ngi ñaan nag monsieur Babacar Mbuub lii nga indi tey bum nekk luy fay na nekk suux la imaaniya benn étincelle boo xam ne waxuma senegal mais àdduna bi yëpp lay daj ñun dañu am garantie kante wax na ko wa ma nasru illa min indillah victoire ca yàlla la nekk te yàlla nee na in tansuru la yansurkum su ngeen taxawee ci diina ji ma taxaw waaye yàlla du taxaw mukk te taxawuñu mukk ci àdduna kenn du jàng ci alquran yàlla dimbale kuy nelaw kenn du jàng ci alquran yàlla dimbale ku jël ay efforem te joxu ko yàlla in tansurullaha yansurkum lama qaama abdullah wa laqad katabna fi zabour min baadi dikr anna al arda yarisu ibadiya salihun réalité la ñi jóg ñëpp te taxaw te am Pastef changé nañ seeni réew ba seeni réew màgg nañ économiquement màgg nañ ci socialement màgg nañ ci lépp am ay nit yu valeur am ay nit ñu baax ëpp ñu moyen Iran ba ko imam Khomeini changé amu doon 15 moo ko wax ci benn kiyam ne daan na toog du am lu mu lekk Erdogan bi muy changé turc amu doon lu mu lekk Cheikh Mohammed Abdul Wahab bi muy taxaw ca Najd amu doon ñaari dërëm Salahuddin Ayyubi amu doon ñaari dërëm Nuruddin Mahmoud amu doon ñaari dërëm Sayfuddin Qas amu doon ñaari dërëm waaye ba ñu taxawee yàlla taxaw na kera ba mu libéré Palestine daf ne dootuñ fi ñëwati mukk lu dul ngeen nelaw ba ñu nelawee jël nañ Palestine yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla sàmm diina ji yal na yàlla taxawul islaam ñu ngi leen di gërëm ndaw ñu jog leen jigéen ñi jog leen borom xam-xam yi jog leen kantema fi yox yoxi lii teraanga ju la yàlla teral la imaam Aliou ndaw wax naa ko ci kera bañ ko jàppee teraanga ju la yàlla teral la manifestation bi fi njëkk dem imaam mbay Niang mii moo ko moo ko moo ko ko moo woon keroog man dañ ma ci dóor ay liif yoo xam ne am naa ñaari weer mënuma jóg julli waaye heureusement yàlla dimbale na ma ndax bañ may dóor liif yi jeunesse bi ak ndaw ñi yëpp ñu ngi taxaw ci balcon yi di ma xool rafuma xëfuma min fadlillah loolu ci gën a leel yàlla la aqulu qawli hada wa astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilayh wa salaamu aleykum wa rahmatullah bu mu